wax nañ ne sëriñ bi mës na ko misaal wax ne am xëy bu rafetut dañuy góorluwaat ci ngontuma mooy sa dund bu amee lu ca weesu loo xam ne melul na mu war a mel la ca des danga nga cay dolli ay effort kon ki dabaatal lu weesu ci ay caaxaan wala lu amul njëriñ mu jéem koo dab dabaateele dundal waxtu wi ak jaamu yàlla bu boobaa dana ko jëriñ mu bokk ci njëriñ yi nga xam ne càmbar sa bopp am na ko mooy xam aqi suñ borom subhanahu wa ak noo ca demee aqi yàlla ji mu am ci yow booy càmbar sa bopp di natt sa bopp ni nga taxawee dina la dimbale nga mën a natti sa bopp ba xam naka nga demee ak aq yooya te àq yi boo càmbaree sa bopp par rapport ak àq yooyu dina la dimbale ci nga sori ak càggante gàttañ lu goo amoon ci àq yooyu nga jéem a xool defaraat sa taxawaay xool àqi suñ borom ak diggante sa digganteeg sa borom lu am njëriñ la lu am solo la lu mënta ñàkk la sax ci jullit bi mu mel ni ñu ci bari sax ci nit ñi léeg-léeg dañu koy fàtte dinañ privilégier relation bi dox seen diggante ak seen moroomu mbindéef xaw a mujjee àqi suñ borom ca loolu dara jaru ko moo tax ci yu bari ba sax doomu aadama yi ñenn ñi ak xëy na influence bi culture occidentale di def ci nit ñi léeg-léeg ñu wax relation bu war a dox diggante nit ak nit lu mel ne ay way dencante ci misaal lu mel ne fidélité wala la ca des la ca des damay bañ a tudd baat bi mu nekk xewit te taxu ñoo jóg ñu bari ak liñ leen di wan ak li ñuy dund dañu jàpp ne boo amee fidélité yaa ngi ko war a am sa digg ak rek ki la yàlla booleel fidélité bi c'est d'abord à, à, par rapport à ton Seigneur ma yàlla mi la bind c'est envers lui qu'on doit être fidèle d'abord ñu fidèle par rapport ak balaa ji ñu waxoon yow ma alastu bi rabbikum yow bis bi mu waxee ndax nekkuma seen borom ñu ne ko ah kay ak nuñ ko mën a waxee moo xam dañ ko dañ ko wax ak suñu coobare wala neneen bi ñu des ñu fidèle ci li ñu yàlla digal ñu di ko jëf xëy na bu yooyu weesoo ñu doog a xool leneen waaye bu fekkee ne rek danga jàpp ne yow te yaa ngi war a xool ki ki la yàlla booleel mën na am bu nelawee sax looy jëf du ko xam mën na am bu fa nekkut bu fàddoo looy jëf mënu koo xam waaye yàlla mi nga xam ne mu yaalamu xaainatal ayun wa ma tux fi sudur yàlla mi nga xam ne dara ump ko kon booy wax fidélité sa digganteeg sa borom moo jiitu moom mi nga xam ne bindu la lu dul ngir nga jaamu ko nga xool noo demeeg loola nga xool noo demeeg moom moom mi nga xam ne dara tëwu ko te ëllëg dina wéet ak yow ba nga defe ne yow rekk la bind kon fidélité boobu lañu war a jiital dëgg la nag ki mu la booleel am na àq yu dox sa digganteek moom muy soxna si di boroom këram waaye àq yooyu li tax nga di ko mën a respecte di ko matal mooy àq yàlla ji jiitu jullit bi lépp lu muy def loolu la war a jiital moo xam day def lu baax moo xam day dimbale ay néew di doole innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura li ñuy def dañ koy def rek ngir jëmmi suñ borom bëgguñu ci sax ku ñu gërëm waxuma laa ku ñu ciy fay kon di sóoraale àqu yàlla yi di xool na nga demeek moom bu matul nga jéem a nag renforcer sa bopp gën a taxawaat dolli Pastef ndax nga mën a wàccoo ak àq yooyu mu bokk ba tey ci njëriñ yi nga xam ne càmbar sa bopp am na ko mooy dana yóbbu doo jaam bi mu dolli ak toroxloom digganteem ak suñu borom ndax bu dee loo jëf bàyyi xel ndax li méngoo na ngërëmal suñu boroom loo jëf bàyyi ci xel àqu yàlla suñu borom subhanahu wa ki koy def rek faw dana dolli ak torox teem wala torox toroxlu gu muy toroxlu digganteem ak suñu borom subhanahu wa ndax jaam bi mën naa góor góorlu waaye néewaa nag mu mën a àq mun a mënal matal àq yooya moo tax xaqa tuqaatihi mastataatum ne ca wet ga xam ne bee boo ko mënta matal itam mastataatum mooy bul desal dara loo mën sa kattan fa mu yem na nga faragalee yàlla na ko ni bàyyee xel na ko ni wat wat wattoo noona bàyyi xel boppam di càmbar bakkanam dana ko dimbale ci mu gëna bàyyi xel yàlla waaye mu gën a dëddu àddina gëna sori ak lépp lu nurook rëy rëy rëylu wala di naw jëfam dana ko ca dimbale ndax bu ko wóoree ne li muy jëf yàlla rekk a war a tax mu di ko jëf bu ko wóoree ne sax la mu jëf ci lu baax mënta assuré na yàlla nangu na ko la mu jëf ci aw safaan ba jéggalu ko donte mën naa rafet njort mënta assuré na yàlla jéggal na ko ko loolu dana ko dimbale saa su ne muy gën a jublu suñu boroom waaye muy gën a sori ak rëy di gën a sori naw jëf bokk na ci njëriñ yi càmbar sa bopp am yi xisaab sa bopp am wala muhaasabatu nafs mooy dana tax doomu aadama bi walla julli dana gën a góorgóorlu gën farlu ci topp yàlla subhaanahu wa dana gën góor góorgóorlu itam ci wattandiku tere yi suñu boroom yi ak bàyyi mooy ak lépp lu ci jëm kon loolu ci njëriñ yi ci la bokk ndax bu dee loo jëf rekk xoolaat sa bopp ndax lii ëllëg dana ma amal njariñ ndax fa ma jëm dund gi nga xam ne amul fu mu yem lii nan lay demeeg loola nga xam ne kon lu lu baax loo jëf danga ko xeeb waaye càggante go goo xeeboon da ko gën a sori da nga ko réyal kon loolu lay dimbalee jullit bi moom mbokk ci njëriñ yi itam ne dañuy wax ne man xaasaba nafsahu fi dunya xisaaban asiran ba yowma alqiyaamati xisaaban yasira mais képp koo xam ne bi muy xisaab boppam bi muy càmbar boppam fii ci àddina daf ko dafa càmbar boppam bu baax dafa sévère sax ci ni muy ni muy càmbaree boppam sévère googu mu ci sévère wala méttital googu mu ko taral googu mu ko taral dana tax ba xisaabam yowmal qiyaam dana woyof dana tax ba dana woyof ndax saa su ne rek lépp lu mu jëf rek mi ngi koy bàyyi xel ndax rafet na bu rafetee ndax mënta gën a rafet ndax lépp sell na càggante lu mu ndaw ndaw donte dafa bokk ci li ñuy wax as-saxaa'ir doonte sax amul solo lool waaye booy xool sa bopp saa su ne rek da koy gën a sori da koy gën a réyal mu mel na yooyu yëpp ci njëriñ ñi nga xam ne xisaab sa bopp am na ko ci la bokk mu bokk ci ne njëriñ yi càmbar sa bopp am bokk na ci mooy àq yi dox sa diggante ak mbindeef nga delloo nga delloo ak yooyu àq yi dox sa digganteeg yeneen doomu aadama yi nga delloo ak yooya ak àq yu mën a doon ndax àq yooyu yaa mën a gaaw dabaatal delloo ko jég tu jéggalu ñi ngi ko séqal sàkku ci ñoom ñu baal la ndax suñu borom day ku la lu dox digganteem ak jaamam mën na ko koo jéggal bu ko jaam bi jéggaloo ak bu ko neexee moom suñu borom subhanahu wa taala inna allaha yaxfiru zunuba waaye lu dox sa digganteeg sa moroomu nit yàlla day wax ne sama yoon nekku ci ba mu jéggal la ko moom ñi doog koo far kon booy xisaab sa bopp sama dëkkandoo bii ndax dérangé wu ma ko ndax sama rajo yu foor yi tanqalu ko ndax li may organiser sama buntu kër di baare yoon bi ndax du àq dina la dimbale ngay dabaatal li ma séqoon ak nit ki tam te xaw cee ñagasal dina la dimbale nga xool na nga cey doxaatee bu dee àq la joo ko war a delloo muy alal wala leneen itam dina la dimbale ci nga delloo ko nag bala محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا kon ñu wëyal fi ñu yemoon di wax ne rekk ginnaaw ni ñu ko tàmbalee woon yàlla dogal na ñu ngi ci at mu yees muy atum jullit bi ñu tàbbi lépp war di soññ jullit bi muy xool muy xoolaat boppam ndax at mi génn ak yëkk jiitu na waroon taxawee la taxawee ndax bu xoolee loolu rek moo koy dimbale ci bii muy dugg nan la ci war a taxawee ak bu ko fi beneen fekkaatee nan la ci war a taxawee mu mel ne dundug doomu aadama bi wala dundug jullit bi fii ak suñ borom ma ngi koy may muy dund muy xool fa mu war a teg tànkam muy nekk foofa lépp njëriñ la koy dund la koy jural moo tax ba ñu doon fàttalante ak yéen ci muhaasabatu nafs càmbar sa bopp xoolaat sa bopp ndax lu suñu boroom di def ëllëg la te boo koy waajal fii di ko bàyyi xel mën na am bu ëllëgee dana bañ a jafe lool ci yow kon wax nañ njëriñ li mu am wax sax ne mënta ñàkk ci jullit bi lu mënta ñàkk ci moom la ngir aw taxawaayam rafet wax ne xisaab sa bopp muxaasaba sa bopp day am bala ngay jëf-jëf ji ni muy amee ginnaaw jëf ji mooy bala ngay jëf nga xool li nga nar a jëf ndax jub na ndax dana la jural njëriñ ci suñu boroom waaye ndax jëmmi yàlla rekk a tax ndax ngistal taxul ndax bañ ku la mere taxul bu dee loolu jub na nga dog koo jëf niki noonu beneen wàll gi di doon boo jëfee ba noppi nga taxaw seetlu taxaw seetlu li nga jëf ndax rafet na ndax mat na ndax gàttañ lu woo ca ndax na mu war a mel ak fa mu war a tege tege na fa te lenn lu ci ne ci yooyu boo taxaw seetloo ba am loo seetlu dana la jural nga xool na nga war a taxawee ci loola nga seetlu kon ñu ñëwoon ci njëriñ yi nga xam ne càmbar sa bopp am na ko ñu limoon ci ba tollu ci àq yi àq yi nga séq ak doomu aadama yi ak kum ci mën a doon ku dul jullit sax waroo koo ameel àq waroo koo tooñ rawatina nag sa mbokk jullit loolu yépp booy càmbar sa bopp di xoolaat sa bopp dana la ci dimbale lu baree bari ginnaaw bu ñu xamee kon ban taxawaay la muhaasabatu nafs am muy se en question ban taxawaay la am ci doomu aadama bi xam xeet yi xam tam njëriñ yi nga xam ne am na ko ñu xool nag lenn ci li nga xam ne dina dimbale nit ki dana ko yombal dana ko puuse ci muy muy muy càmbar muy càmbaraat boppam muy def taxaw seetlu ci boppam loolu bokk na ci li ñu waxoon léegi muy mu xam ne bu dee bu dee muxaasaba boppam bu dee xoolaat boppam di càmbaraat boppam nu mu ko gën a defee rekk mu gën koo noppalee noonu ëllëg ndax daf koy dimbali ci lu mu war a def rek lay def lu mu warta def du ko def ndax lu mu xawoon a jege ci lu mu warta def sax bu càmbaree boppam dana ko seet lu mu xawoon a sàggane ci lu mu waroon a def bu càmbaraatee boppam dana gën a fonk loola rëcc rëcc bu mu am dana gaaw tuub ko wala mu toftal ca yeneen jëf àq ju mu ameel nit dana gaaw delloo ko àq jooja kon loolu daf ñuy won ne boo dee muxaasaba sa bopp di càmbar sa bopp lu bari dina la dimbale ëllëg ba xisaab bi la suñ borom di xisaab mën naa am mën naa bañ a metti ci yow bis boobu nga xam ne ni ñu ko waxee woon léegi rek amul jëf lu muy rëy rëy walla lu muy tuuti tuuti lu dul suñu borom dana ko indi danañ ko def ci téere yi moo tax ñi sàgganoon di wax ne cey téere bii moom daal amul lenn lu rëy wala lu tuuti lu dul rek indi nañ ko indi na ko téere bi suñ borom wax ne nag ñu fekk lépp lu ñu jëfoon mi ngi teew ci téere boobu wala yazlimu ko ñu def ko ca téere ba di la xaar fekk na bàyyi woo ko xel wala fàtte nga ko kon bu la wóoree ni ngay càmbar sa bopp saa su ne dina la dimbale ëllëg loola dana la ci soññ beneen ci liy dimbale jullit bi ngir muy saytuwaat boppam di xoolaat boppam di xool li muy jëf di xoolaat taxawaayam mooy bu ko wóoree ne daf koy jural ak texe daf koy jural ak texe ndax lan ndax saa su na rek da koy leeral li mu war a jëf mu gën cee farlu la mu warta jëf mu gën koo sori kon loolu dafay jural doomu aadama bi texe daf ndax dafay fàttaliwaat boppam am ñuy wax ne doomu aadama li tax ñu tuddee ko tur woowu mooy gaaw a fàtte nga xam ne xeetu jaamu yàlla yu bari bu ko jaam bi respecté daf koy dimbale ci muy fàttaliku tudd yàlla daf koy dimbale ci muy fàttaliku kon di xoolaat ay jëfit jëfam di ko saytuwaat di ko càmbaraat daf koy dimbale ci mu fàttaliku ni mu war a taxawee beneen ci yi nga xam ne dina dimbale jullit bi ngir mu farlu ci di càmbar boppam mooy mu xool ñi muy àndal àndandoom mooy mooy ànd ak nit ñu baax ñoo xam ne saa su ne ñu ngi càmbar seen bopp saa su ne yonent bi sallallahu alayhi wa benn tàndarma la gis këram jël ko laaj wax ne bu ma ragalutoon mu nekk sarax day naa ko jëfandikoo benn tàndarma boo fekk sa kër kon kooka mi ngi càmbar boppam kon di ànd ak ñoo xam ne ñi ngi wattandiku ñi ngi càmbar seen bopp dana la dimbale ci ngay mën a càmbar sa bopp yow itam te ñooña ñiy doxee doxin woowa ñaare booy ànd ak ñoom boo wàccee yoon wi daañ la ko fàttali ayib junde ci yow dinañ la ko dinañ la ko tuddal tudd goo xam ne nag ci wàllu nasiha lay doon wala al amru bil maaruf loolu lañ ciy jublu mooy ñu conseiller la ñu laaye la biir ne la lii kat gënut nii ngay jëfekat boo mënee jëf neneen moo gën ndax ki nga xam ne mi ngi muhaasaba boppam mayul dara boppam kooka kii ànd ak moom dana ko dana dana ko bàyyiloo xel ca loola ndax day gis ne bu amee lu mu ko war a wax te waxu ko maanute wala sincérité gi mu waroon am sax diggam moom ak boroomam dafay des kon tomb boobu mooy di ànd ak ñu baax di ànd ak ñuy càmbar seen bopp di ànd ak ñoo xam ne lu teew ñi ngi xool ndax nuñ ca war a jëfee luñ war a jëfandikoo dinañ ko càmbar ba mu wóor leen ne dagan na wala lew na loolu dana dimbale jullit bi ci muy càmbar boppam dana ko ci soññ bokk na ci li ciy dimbale doomu aadama bi muy càmbar boppam muy xoolaat conscience mooy muy faral di ziyaare ay bàmmeel ay xabru di ziyaare sëkk yi mu wóor ko ni ñi tëdd fii ñëpp ñi ngi doon dund ni muy dundee ñi ngi doon dox ni muy doxee ñi ngi doon am ay mébét ni mu koy amee mu wóor ko ne it dana mësa ñëw tëdd fii nii ñu tëddee dund gi continuer te lam jëfoon rekk a koy jëriñ la dox sa diggante ak sa borom muy lay wut bu dee alal la ku la ko ëppale fuuf ba na ko fa dem tëdd bu dee ndomba tànk la ku la ko ëppale fuuf mën na am sax la nga cay yootu moom lam ca amoon kawe na loola ma ko fa bàyyi dem tëdd te fa tëdd jëfam rek moo ko fay jëriñ loolu dina la dimbale nga xoolaat sa bopp nga xool sax léeg-léeg booy xool ba ci tableau yi ñu ci def léeg-léeg nga gis koo xam ne at yu néew la dund léeg-léeg nga gis at ku dund at yu bari te xamoo ci yow looy dund loolu yëpp mën na laa dimbale ci ngay càmbar sa bopp dana la dimbali nga xam ne li wolof di wax ku dee yóbbaale mébét ndax dee ci mbetteel rek lay ñëw dana la tax nga gën a farlu xam ne kat sa mébét yi warta dox sa digg ak sa boroom ndax mébét yi xamoo ndax danga nga ca yegg te sa digg ak sa boroom moom faw da nga ca dellu da nga dellu ci kanamam mu càmbar la xanaa xam ne mu ñu ñu koo rëcc rek moo tax mu ñuy boyal moo tax boyal gi liñ ci jublu mooy boo defee loo warta def sax xëy na loolu dinañ ci ñëw yërmande suñ boroom la mu may la nga mën a dabaatal tuub ko bu ko neexoon fa nga koy moyee rek ci saa si nga koy gis moo tax subhaana rabbin lam yuaxizuhum bi ma kasabu huna fa huwa saburul majidu bu ko neexoon li nga jëf fii rek ci saa si gis ko waaye yërmande ngi ci mu may la nga tuub réccu dabaatal waaye leneen a ngi ci muy xam na ne mënuñu ko raw xam na ni wiiri wiiri jaari ndaari faw daañ teew ci kanamam bu boobaa nag la mu wara regle ak ñun dana ko regle kon doomu aadama buy ziyaare ay bàmmeel di xool ziyaare bi mooy ngay xool rek di di yeewu xam ne wa argabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya ma alxayaati walaw suwayaatan ñi faatu liñ gën bëgg boo leen ko laajoon mooy ñu ñëwaat ci àddina donte waxtu su ndaw lañ fiy am donte lu mën a julli ñaari rakka lañ fiy am ndax gis nañ njëriñ lam leen di jëriñ ëllëg kon loola ci ci la bokk bokk na ci kon di góor góorgóorlu ci xam-xam ak di teew jataayu xam-xam yi bokk na ci sori bépp barabu fo ak ay fokat ndax yooyu yëpp day tax nit ki sàggan day tax nit ki du fàttaliku suñu borom yàlla ñu yàlla dimbale ba ñu boole ci ñi nga xam ne dinañ muhaasaba seen bopp ba ëllëg xisaab bi leen suñu borom di xisaab woyof wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu yam